moo tax ah juróom-benni rakk tamit soo ko defee julli ñeenti rakk ak yee boo naafilaa ñaari rakk boo safaa wi taree rek juróom fukki yi man ñoom dañ koy tërale noonu ah ngeen baal muy juróom fukk su ko defee yal na yàlla ci barke yonent sant bu baax a baax ndax itam jataay yi buñ fi dee daje war nañu fiy jëlee dara waaw ndax Seydil Hadji Malick moo ni liqaau nnaasi laysa yufiidu shay'an siwa lhadriyaani wa qallil min liqaai nnaasi illa li axdi l ilmi aw islaaxi xaali Sidi Hadji Malick nee na liqa unnaasi dajeeg nit ñi laysa yufiidu shay'an du jariñ dara si wal hadayaani lu ci ñaari mbir min qiilin wa mu ni su amul wa qallil min liqaa innaasi na nga néewal nit ñi su amul lu dul ngir leen illaa li axdil walla nga jële fa xam-xam aw islaaxi xaali wala lu jafar sa jikko nee na bu loolu rek bàyyi ko moo tax bari na mag ñoo xam ni ñoom dañu mujj def loolu ndeysaan eh, damay waxtaan ak benn kilifa fan yële mu ni ma sama mujj sama audience bi mujj ak Serigne Cheikh ma ni ko waaw mu ni ma def ma ni ah man day du diw génnuma fen ndax boo dégloo déglu déglu la naqari boo génnee gis lu la naqari waaw sama benn jigéen ñu di ko wax Gaël Camara doomu aja aram jéen la su ma ko waxee mu ni ma man day Ahmadu man ni ko labayki mu ni ma man duma déglu rajo duma seetaan télé ma ni ko gayal kon doo xam lex ci réew mi di mu ni ma ah stress dong la lay wax di lu la naqari dong ngay dégg ci rajo moom ngay gis ci télé man man daal maa gis sama bandi bàyyi mbay doon rek ak seen band fu woyu jeexee rek ma teg beneen kenn du ma yóbbee musib waaw ma di ko ñoom ñi déglu naa ko mu ni Serigne Cheikh daf ma recevoir gunge ma nee ma génn ci biti mais mu ni ma laay ma di jant baa ngi waay juróomi weer ngi gisuma ko gisuma jant <laughs> moo tax mag ñi ñoom dañuy seet luy defar seen dund ñu nekk ci waaye yii xew léegi boo toppee rajo yi <laughs> te lu ne ñuy wax ah. ay yéen président Macky Sall 2012 gañewul rek ngeen dégg ci rajo bi am journaliste bo journaliste yëpp daal di ni day ngénte alxamis doom bu góor ci pale bi dégg ngeen ko di ku ne di ko wax ñuy def ci revue de presse wax a wax teg kàcci neen andu ci am ca laa déggee Tafsir Abdourahmane Gaye naan ren moom journaliste gox woowu moo jël ku bu ma ci waxtaan ak sama benn magu ma information yëpp nag man ko amoon mu yu ci bari noonu la ma ni ko nga ma maa ko waaw fake news rek waaw boo ca toppee nag di wax la yenn ca bàkkaar ba ba doyal kon su ko defee yàlla yàlla def loonu ñu eh, dama dem biti réew sama benn nit ni ma man de bu may déglu rajo yi damay defe ni Sénégal mu ngay tàkk ma ko wallaahi ma ko lool la de ku nekk di wax la sëñ Abdou daan wax rek waaw ki mer nekk ci mbedd mi nga dékk ko micro ñu ko loo waxal sa xalaat waaye <laughs> Bassirou Diagne yàlla na ko yàlla yërëm seen sëriñ nee na du waxal sa xalaat waxal sa xol la ki mer di saaga xam nga ki àttana woo direct ci rajo di saaga nga dékk ko micro ku la neex dékk micro sëriñ Cheikh ne woon na la ñu war a wax ci rajo ku ko ca waxul yaa yàq lañ ca war a wax ku ko ca lañ ca warul a wax ku ko ca wax yaa yàq waaw <laughs> maa ngi fàttaliku benn émission bu daan jaar ci télé bi direct benn mooy maam day bànneexu waa ji benn xale day woo xale yow taasul waxal la wax ñu woo xale ba taasu ñu woo benn xale xale ba wax fa loo xamante ni lii ñuul dégg nga taasu bu ñaaw woowu mu ne ko eh, ëpp daaw daal di këf micro daal di ko la ko jàngal mu ni sama mag mu naa ko yow si yow diw li nga jàngal xale bi xam nga ni baaxul moom yoonam nekku ci moo tax eh, yu jar a xel la waaw di nga gis ko topp ci deru kor di wax te fekk information ba dara amu ci dara te wax lu la wóorul dara wóorul nga topp ci deru kor di ca wax waaw diw def na nangam diw def na nangam te yow la sëñ Muniru Sarr daan wax rek ni nattu bi dal nit ba tax nga di ko ree dangaa yàkkamti sa wàll ñëwagul ah yooyu yëpp dafa jëkk te xamoo yow foo jëm te sëñ Babacar ne woon na àdduna bëccëgu weeru koor la fekk jant sowul juubu du wees waaw àdduna bëccëgu weeru koor la fekk jant sowul juubu du wees am lañu yàlla defal sutura sa zaahiri ah, rek dëgër jigéen ñi ndax damay bañ ñu ne ah, ñun kat dañoo nekkoon di waxtaan rek waaye tabaarakallaahu eh, nañu góorgóorlu ci jàmm yàlla bu baax fonk suñu tariqa bi di ko wér hmm. waaw na ngeen ko jël tariqa bi pour sauver nit ki la xam nga astaxfirullaha nga di ko wax téeméeri yoon boo xëyee ni yàlla astaxfirullah yàlla baal ma yàlla baal ma yàlla baal ma téeméeri yoon xanaa yàlla dina la baal ah téeméeri yoon nga waxati ko ko fanweer ca wasifa yàlla baal ma loolu xanaa nit koo ko wax sax ah la waa ni woon Seydi Hadj Malick di li mu wax yonent bi ah sallallahu alayhi wa ko ko wax maaloo sax mu may la ah wax dëgg yàlla ah ku ko wax maalaw law bi mu may la mbaam waay moo tax nga nga jël fatiha benn téeméeri astaghfirullah téeméeri salaatul fatih téeméeri laa ilaha bis bu ne nga xëy def ko Seydi Hadji Malick nee na koy saxoo doo am coono àdduna ak alaxira wal wirdu qul thalathatul miina takfi ida lazamtaha al mauna loolu la wax nee na boo ko dee def sellal ko piir kenn du la yërëm coono àdduna ak alaxira doo ko am mukk waaw seydi xaaji malik ni ala marratun minha min annaari fidyatun wa mawtun ala al fi daaka yursamu benn yoonu salaatul fatixi nee na njot la ci safara te garanti la ni booy faatu ci lislaam ngay faatu hey xoolal boobu garanti ah xoolal loolu nga wax laa ilaha illallah laa ilaha yonent bi nee na ku ko wax mu sax ci sa xol bi ëllëg ba du la yi naroon a yenu pour yóbbu safara diisaay bee tax duñ la àttan waaw ku mu mujj ci sa làmmiñ nga dem aljanna laa ilaha illa waaw ñu jox la ko tariqa loolu lay jëriñ mais du ay ñëw rek pour yaa ma neex nii comme yi xew léegi sama kii yee sama sëriñ <laughs> ngeen ànd di def lu leen neex kooku du tariqa ke sëñ Abdou doon nettali ànd ak sëriñam ñu dem ca baar ba nag ndeysaan te kat bi kat taalibe sëñ bi la waaw servir sëriñ bi sëñ bi naan naan ba màndi benn bis nag sëñ bi màndi ñëw di déconné barman bi taalibe bi dóor ko ba toj gémmiñ moroomu taalibe bi ñëw nag naan ko ah yow tam nag sëñ bi lu tax nga def ko nii dóor ko ba toj gémmiñ ci mu naan ko ah mais xam nga sëñ bi sax bëgguma ko woon a dóor waaye sëñ bi dafa bari ay problème quoi moo tax li mu def moo tax rek moo toj waa ji naan ko waw léegi nag dama bëgg ma jubóole leen rek nga seluir ko mais <laughs> mu jubóole leen mu seluiraat ko ne ñoom ñaam ñaar ñu ànd mandi nekk mu nelaw fa nag ne mu diri leen dugal ca biir néeg ba ca biir tàllal leen ventilateur te ñu nelaw ba yaa sëñ bi yow ak taalibe bi taalibe bi ni ko sëñ bi waaw fu ñu ne nii ma ni ko àjjana ni ko waaw ñoom Alaaji Maalik ak sëñ Tuubaa fu ñu ne fii mu ne xaaral bu ma génnee seet yooyu ay yaa ma neex la rek yéen a ngi ci def li leen neex copinage la rek tariqa du loolu de eh, tariqa da ñëw jël ko am looy jëfe di wird di wazifa di def xadaratul jumaati loolu mooy tariqa bi waaye ñëw naa rek moo tax ñu bari defe ni tariqa bi dafa diis boo gisee ñu bari di daw tariqa bi loolu la di parce que yombul ñoo rek joxe sa bopp toog dem sa yoon ba kañ mais loolu xamoo ni nit ki koy def sax war naa laaj jox naa la sama bopp rek dem yoonam tënku la ci dara te Cheikh na Tidiane yi nee na boo demee ba ñi yor tariqa bi gisatoo ci ku ci def loolu la doy jàpp jàppal salaatul fatiha muy sa sëriñ ba yowmal qiyaama parce que nee na di dem ba nit di nga ko may wird dootu leen gise ci jamono ndax xataay yowmal qiyaama rek ngeen di taxaw daje fa nee na boo gisatul lu la doy sax ku la doy jëlal salatul fatixi bi ko yor mooy sa sëriñ def ko sëriñ kooku koy tënk xam na lim la tënk boyal na la moo tax ngeen di ko jël di wirt di wasifa waaw wirtu woo xam ni ak wasifa boo xam ni soo ci soo soo ko yoree di nga dem aljanna yóbbu sa jabar yóbbu sa doom yóbbu say sët say doom yu góor yi jur yóbbul sa ndey ak sa baay kono may jabar mbaa nga mooy ko jabar te nga ñuul cheikh te bokkul ci tariqa bi nga garantir ko lii lu ko dàq bushra li aaxiri hada al wirdi saalikihi man naa la hoo naa la ajran gayra mamnuni loolu sëñ Babacar wax bushra mbég ñeel na li aaxiri ki jàpp haadal wirdi wirdu cheikh wii yi soobu ca nag di ko respecté man naa lahoo ku am tariqa bii wirdu wi naa la di nga am ajaran yor boo xam ne xayra mamnuuni te mooy aljanna joo xam ne sa ñëpp xaj nañ ci qad aflaha almuminuuna almumsikuuna biha man na min allahi fi yusrin wa tamkiin loolu la jëriñ Cheikh na Tidiane yi indiwu fi ay xëccoo ki puukare nangam Cheikh fa mu toll benn wëli yu fa fekk nekk na ko ba noppi la sëñ Abdou daan wax rek naan gàmbu lemam la yor soo ñëwee bu neexee mu jox la su la neexul sa affaire toogal wàññi ko dara moom yor li doon na li muy doon ba noppi mooy barzaxul maktub taajul aarifin mumidi awliya rahman xaatimul awliya di mumidul aarifin jeex na mënoo loo ko dal yaa ngi ñëw jëriñu neexu la nga toog ma tax mu ni sa doom sax bul ko ci forcé parce que ku ko jàpp bàyyi ko alko waaw tariqa ku mu mën a doon boo ko jàppee bàyyi ko alko sëñ daan wax ni boo ko jàppee bàyyi ko soo dee wëliyu yàlla rékki la nga wacc sunna bëccëg dootoo ci mën a dellu si soo dee milliardaire di nga ñàkk sa alal boo dee buur di nga ñàkk sa ngóor am na buur bu fi songoon tariqa bi dafa ñàkk nguuram am na borom alal bu fi songoon tariqa bi ni li ma yor ci ay milliards dinaa ko financé ba naasiril xaq dootu fi ji maanaam gisul biti moo tax cheikh tuba yi bay la tuba yi bukki la du njaawaa njoowaanuk def tuba yi bukki bayu ndaw du ca joowaanu moo tax ku koy song bàyyil rek amul problème li <laughs> jarul jarul histoire cheikh moom ku ko soog billaay say baqate dina ñu bàcc maa la ko wax moo ni mel benn yu du ko song te du kii kenn ko song nitu yàlla bul ko song soo ko jubuwul itam bàyyil rek waaw te nekk ci li nga nekk yàlla yaatu na waaye doo fi nekk nag moom <laughs> loolu nekk bu soobee yàlla mu effacé la rek yàlla day ne bu ma rëddee nga far ma rëddaat nga far ma fa la far rëdd ci sa kaw ah ah sëñ Abdou nee na ma maam Cheikh Anta Mbacke radiyallahu anhu daa ñëw Kébémer ci benn boutique fekk fa benn libaane buy jaay mu ñëw nag <coughs> sénégalais ba fay liggéeyee xaw koo woyefal beccingal ko nee mu ni naar bi boutique bi ñaata mu ni ko ah bitig ban mu ni ko bitig bi lépp <laughs> mu ni ko ah luy loolu mu ni ko dama koy jënd wàññi ko waay wàññi li fi ne lépp nee mu wàññi lépp mu jënd ko <laughs> daal fay daal di bi ah waaye yow nag léegi nooy def <laughs> jënd naa bitig bi de moom li ko ci deewul lépp mooy waa woyofal gi mu ko woyofal rek la bëgg a faj moo a <laughs> am na moo xam ne boo ko bëggee gotti da ngay sonn na dem. bari